cant ak gërëm ñeel na leen yéen ñi sax dàkk di seetaan seen télévision prestige tv euh, mbokk yi bisimilah ci li gën fës euh, ci xibaar yi euh, jub jubal jubbanti loolee nag moo nekkoon slogan wu njiital réew mi loolee nag mu ngi koy wëyal gannaaw ba mu dikkee ni ki démb ci àllarba ji foofee ca mbuuxkaat Euh, fële nga xam ni moom moo di noto jabaas ñi nga xam ne nag ñoom ñuy liggéeyee ci mairie yi ñu ngay wëyal seenu grève waaye nag kii di maire bu noto jabaas daal dina ubbi ab audience foraine ngir nit ñi mën a am seeni ay këyit Euh, syndicat des travailleurs yi nekkee ci autoroute Ila Touba ñoom nag euh, démb màggal nañu benn fan bi ñu jagleel euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi wax nañ ci tamit la leen metti xibaaru bi réew mi xibaaru bi di réew xibaaru tàggat yaram ñoo ndar keppe suñu xibaaru tay ne tuuti ñu faram fàcceel leen asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan prestige tv juróom-ñetti waxtu jot na ba tegal fanweeri simili xibaar yi dañ koy dooree ak slogan wu ki nga xam ne moom moo di njiit réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw ba mu waxee ni euh, jub jubal ak jubbanti lay wëyale euh, li nga xam ne moom moo di réewum Sénégal daal dina ko door nag euh, fii ci diwaanu Thiès ni démb lañ ko daldi di mu ñëwoon fii ci ba ji foofee ca site bu mbuuxkat ngir xool site boobee rek nag Euh, lañ ko tëralee euh, la taxoon nag mu daal di fa euh, ñëw bokk na ci leeral mbir ya moom gannaaw ba mu jëlee kàddu daal dina xam le ni nag dafa affirme dafa réaffirmer li nga xam ni moom moo di décision ba mu jëloon ngir fexe rek ba su soosee lépp loo xam ne rek dañ ci tegoon ab ndëq sërëx mu daal di fexe ba mbir ma dañ waaye it ñu mën koo jaarale ca yoon ñu teewlu ay kàddoom ci micro prestige nouvelle ville de Thiès bu ñu la woonee répartition bi te ñu ne la daanaka jege na 3000 hectares maanaam ñetti junni hectares nga xam ne ñu bare bare bare bare ci am jafe-jafe dëkkuwaay ci biir Thiès ak ci yenn partie yenn fi jege Thiès waroon nañ faa mën a dëkk ak yu bëri yoo xamante ne mën nañ ko def waroon war nañ ko def ci biir réew mi te ñu am problème mu suuf def ko ni ngeen ko gisee ak man gis ngeen ne bu ñu xoolee ni ñu seddalee mbir mi ñi fi nekkoon jiite ànd ceeg ak ñenn ñoo xamante ne borom alal lañu ñoo ko pàccu ñii jël ay 10 hectares ñii jël 1 hectare ñii jël 3 hectares ñii jël 5 hectares ñii jël 30 hectares ñii jël 50 hectares kenn koo xamante ne am na lu ëpp 200 hectares ci kenn benn doomu aadama te dara mayu ko ko lu dul dafa jege nguur kese. au même moment ñu jël daanaka lu hectares la ñu séddale ville de ville de maanaam 3 hectares mooy parcelles yoo xamante ne moom la ville de Thiès joxe ay citoyens. nga xool ci wetu ñuy jox ay nit cent cent hectares deux cent hectares trois cent hectares wala dix hectares sax wala sax benn hectare wala sax quarante parcelles pour kenn koo xamante ne xam na ne moom lay waxal ni ma bëggoon Sénégalais yi xam ne li tax ñu arrêté li ñuy def ci site yi nga xamante ne moom la ñu visé te dafa am ay acte rek yu mu concerné c'est pour bañ ñi nga xamante ne niñ ko xamee ñun ñu ngi nekk di gaawantu ci diggante bu ñu leen wàccee ci nguur gi bu ñuy dem ñuy gaawantu pour ñu signaler leen ñu am ay boo wala ñu am ay titre foncier pour ne état yaa ma jox léegi mettre ñu lu ñuy wax devant les faits accomplis maanaam tegal ñu situation boo xamante ne du ñu am lu ñu ko def loolu moo tax ñu arrêté lu ñu arrêté arrêté lu ñu nag pour xoolaat pour tamit li nga xamante ne digg nañ ko Sénégal yi mooy jubbanti parce que yu mel nii buñ koy def ñu ko def teguñu ko njub jubaluñu moo tax ñu war ko jubanti te buñ ko jubbantee du loo xamante ne day delloo day ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo yegg ci nguur tey du loolu ñi ma àndal xam nañu ko mais mënuloo jël lu mat ñaari junni hectare wala lu ko ëpp ci biir commune Kër Moussa bi ngay jox waa Kër Moussa suuf nga jox leen kese fukk fukk fukk parcelle ak juróom naka lañ koy seddoowee après nga jël ay toolu jàmbur donte loolu boo jàpp ne sax mënta ñàkk mais xalaatal ni waa Kër Moussa dañoo am fu ñu war a dëkk dañu soxla ay aire de récréation dañu am ay aire foo xam te ay terrain football la ay stade te municipalité bi jooy na ko ba sonn mënu ko am lii nag moo tax sénégalais yi fal ñu fi. te incha allah rabi dinañ ko doxal ba fu mu yem. gannaaw ba maire yi di woyalee ab grève foofe nag ca mairie bu Notto Diobass mairie ba maire ba daal dina fexe ba daal di ubbi ab audience foraine maanaam ubbi buntu ya ba képp koo xam ne rek euh, ab euh, jafe-jafe amoon nga ko ci ay wàllum kayit nga daal di ñëw ngir ñu daal di lay saafaral la boobee jafe-jafe askan ba nag ñoom ñëpp ñëwoon nañ teew ca mbir moomee ngir mën a am ay euh, këyit yoo xam ne dafay daal di yemb ngir seen nekkin waaye it naka lañ koy jëfandikoo wee rek ci biir réewum Sénégal kii di Daouda Pouye di responsable état civil daal dina dellu First Initiative boobee ñu teewlu ko uh, ci micro Moustapha Mbaye ak Ibrahima Sarr. tey mooy audience foraine boo xam ne dañ ko organiser woon avec le tribunal de Thiès ci ay gone yoo xam ne dañoo war am kayitu juddu mais aussi ay acte de décès ak aussi ay euh, certificat de mariage kon ñetti mbir yooyu biiru ci état civil muy kayitu juddu muy kayitu décès ak kayitu mariage moo taxoon tey askan bi tase fi tey juge bi ñëw fii pour ñu may ñu ab audience foraine. mu nekk tey jii moom ñu ngi ci mille cent cinquante et un. waaw euh, am na quelques absents mais quand même amul solo quand même ci absence non papi dañuy jox information bi suñu jotee information bi ñu jox ñu ay requête requête ci wàllu naissance requête ci wàllu décès requête ci wàllu mariage. yooyu la ñu maintenant collaborer ak chef de village yi comme ça ñoom maintenant ñu yëgal ko askan bi ñooñu maintenant suñu indee seen dossier ñu remplir leen seen requêtes yi yenn saa yi aussi au niveau de villages chef de village ak euh, mbokk yi nekk foofu ñoom ñoo remplir requêtes yi ñoom indil ñu ko ñu vérifier door ko mën a enrôler maintenant di xaar bésu tey tey jii moom euh, ci audience bii ñu nekk nii mu touché na cinquante neuf villages sur soixante sept am nga soo fi eggee bi gis mbooloo mi di nga gis ni wax dëgg yàlla askan bi di koo soxla woon da koo soxla woon moo tax mbooloo mi aussi ni mu bëree am nga soo seetee ba tey nit ñaa ngi ci biti kon wal na ne askan bi soxla woon na ko askan bi aussi moom mu ko demandé woon ah ñoo juge bi aussi au niveau tribunal vraiment am mbaax yombalal ñu ko ba ñëw fii ñu ne ci bi heure bi na ñoom suñu demee dañuy yóbbu requête yi def li ñu war a def ñun ñu photocopier loolu ñëw fii pour transcrire ko suñu registre nit ñi jox seen kayit. sensibilisation mooy euh, daa am sensibilisation avant ah, oh, ginnaaw bi nga jotee information bi mooy nga sensibiliser askan bi won leen ak kayitu du mooy kayitu juddu naissance wala décès wala euh, mariage déedéet lu am solo loo xam ne ci léegi jamono yi ñu toll doomu aadama wartul tàggoog moom kon soo ko amul danga ko war a wut. kon suñu yàlla dimbalee ba ñu am audience yéen ñëpp ñu amuloon kayitu juddu fexe leen ba ñëw pour am audience boobu mais am na lu ko jiitu nag li ko jiitu mooy lan mooy lii ñu leen may nañ fexe ba loolu bu mu amati nan lay def ba ñu amati déclaration yi sensibiliser population bi ci déclaration à temps ci àdduna wër nga këpp ñu màggal euh, niki démb benn fan ci weeru Euh, mai bis bu ñu jagleel liggéeykat yi fii ci diwaanu Sénégal nag ñu bëri daal di ko màggal euh, fête boobee nag euh, ñu ci bëri nag wane na seenum naqar ci bërëb seen bërëbu liggéeyukaay yooye waaye nag fii ci diwaanu Thiès ñu bari bind nañ waaye it wax la leen metti yóbbu ko ci gouvernance Rokhaya Ndaw di présidente jeune membre bu seen CNTS moom nag daal dinay délivrer maanaam daal nay joxe ab bataaxalam ca la leen metti ci seen seen bërëbu liggéeykaay yooyee euh, foofee ca gouvernance ñu teewlu ay kàddoom euh, ci suñu micro reporter yu ci mel ni euh, mam Birame Gueye ak Ousmane Diallo. tawat yeeg li nga xam ne lépp moom la bépp liggéeykat bu yeewoo Thiès bi di jànkonteel ñu tënk ko ci benn cahier bi ñu tuddee cahier de doléance indi ko fii nii ci Thiès ci ci gouvernance bu Thiès jébbal ko ki nga xam ne mooy premier autorité de la région de Thiès madame le gouverneur Euh, tey loolu moo ñu indi. yaakaar naa li gën a fës si li ñuy jooytu mooy euh, li ñu naan euh, augmentation de salaires. yokk salaire yokku salaire yi daal moom xam naa ne bokk na ci li ñu gën a jooytu ak li nga xam ne mooy ñoŋ-ñoŋal fi seen bërëbu liggéeykaay parce que ñëpp xam nañ bërëbu liggéeykaay yi bokkuñu ay conditions yu nekk ñii dañuy nekk ci ay conditions yu tane ñi nekk ci conditions yu xam ne li yàlla xam doy na donc loolu tamit bokk na ci li ñu gën a gën a gën a gën a gën a recensé ci nga xam ni mooy ci ci ci problème yi am nii par rapport ak tey jii ci cahier de expérience yi bokk na tamit ci nga xam ni mooy prise en charge médicale ndax ñëpp xam nañu Sénégal jamono ji nekk nii boo amul prise en charge médicale hôpital yi cher na cher ba faj gi ci wàllu faj gi cher na cher boo xam ne euh, boo ñu amul prise en charge rek day metti seen côté lool lool lool bokk na tamit ci ay conditions yi de travail muy li nga xam ni loolu lañ tuddee l'âge de la retraite maanaam nit ki war a retraité ba âge soixante cinq ans gouvernement du Sénégal nag soixante ans xeex pour ñu yóbbu ba soixante ba ba na tamit ci li ñuy xeex bokk na tamit ci li ñuy xeex mooy euh, taux de chômage maanaam ñàkk liggéey bi am Thiès te lu boo seetloo du mel ni ay usine euh, textile bi nga xam ne moo fi nekkoon euh, buñ ko ibbiwaatoon INSS buñ ko ibbiwaatoon xëy na dina dina dina jël lu bëree bari bari ci ay doomu Thiès ñu liggéey donc ci li point de revendication yi daal li ci ëpp daal bokk na ci yokku salaire mën a faj ba feebar war a mën a faju faju ci ci am am prise en charge bokk na tamit ci ñoñantal bërëbu liggéeykaay ñi nekk bokk na tamit euh, ci euh, taux de chômage bi nga xam ne moo nekk ci waa sant yàlla yaakaar am na parce que tamit euh, il faut peut-être temps am ñu bàyyi leen tuuti ñu mën a liggéey na xam nañ Sénégal daa bëri ay tawat bëri ay jàmbar waaye suñu xel dina dal parce que tamit ouverture bi am nii par rapport ak bu njëkk ba amul amul woon trop ci ci sama gis-gis donc yaakaar nañ suñu doléance ñu indi fii tey dugg ci tiroir yi comme niñ ko daan xalaatee ni daan dugg ci tiroir yaakaar nañ yii moom dañ am dañ am vraiment saafara bu baax a baax ba tey ca gouvernance bu Thiès kii di adjointe au gouverneur di Tening euh, fay Ba moom nag gannaaw ba mu nangoo bataaxalu syndicaliste yooyu yëpp daal dina xam ne nag dana ko yóbbu euh, ba ba fa mu war a yegg moom Tening fay Ba moom it mu ngi doon àddu ci micro soxna ma Birame Gueye ak Ousmane Diallo. Euh, premier mais nag dafa doon journée bu nga xamante ne que ni dañ ciy feetu euh, kii euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéeykat ñun ñëpp ñu bokk ci toog waxtaan ci seen i conditions de travail ak tamit seen i conditions de vie ñu fexe di xool luñ mën di def rek du doy ñuy xool nan lañ koy gën a mën a améliorer loolu moo waral tey ñu indi doléances yi nga xam ne indi nañ ko waaye tamit di wax ne c'est vrai que depuis l'année dernière am na avant même l'année dernière am na ay en tout cas avancé yu bëri yu nga xamante ne nii travail amaana am nañ ko te chaque année buñ jotee tamit cahier de doléance yi du dañ koy jël rek teg mais ñoom xam nañ ne buñ ko jëlee dina am liggéey bu am solo buñ ciy def ànd ak ñoom ci en tout cas coordination inspecteur régional du travail waaye tamit ànd si ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ba lépp loo xam ne doléance la muy jafe-jafe buñ ko jotee dinañ ko càmbar examen kay yi lu ñu mën a faj fii nga xamante ne nii mooy au niveau régional inspecteur dina ci taxaw bu baax euh, ba nga xamante ne nii dinañ ci am saafara waaye loo xam ne tamit amaana dafa sut suñuy mbagg dinañ fexe ba ña nga xam ne ñoom ñooy suñu ay kilifa jot si ba mën ci indi en tout cas taxawaay bi nga xam ne moom moo ci war ma bëggoon rek daral seen xel ndax ñun ñëpp li ñu en tout cas ñaan mooy am climat social bu apaisé dëkk bu dal te dëkk bu dal nag day ànd ak ñay liggéey ca dëkk ba fa ñuy liggéeyee ñu am fa jàmm gis fa seen bopp loolu moo tax liggéey bi nga xamante ne administration du travail mu ngi koy def depuis loolu jëm ci conciliation jëm ci fu jafe-jafe am mu fexe ba juboo wala déggoo am entre liggéeykat ak ki muy liggéeyal waaye tamit di def ay control contrôle inopiné ba nga xamante ne nii ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey dinañ gën a mën a en tout dinañ gën a mën a nekk en phase avec li nga xamante ne ni moom mooy droit du travail en tout cas ñun ñu ngi leen di euh, remercier waaye tamit di leen di leen wax suñu disponibilité ak suñu ouverture te yaakaar naa ne loolu lañ mës di doxale depuis bi ñu fi nekkee ba léegi ànd ak ñoom di xeex pour que vraiment condition de travail gën a mën a amélioré wu syndicat national euh, ñooy liggéey ca autoroute Ila Touba yi ñoom nag desuñu gannaaw ci démb benn fan ci weeru me bañ doon màggal bés bi ñu jagleel liggéeykat yi ñoom it euh, génn nañ dem ba ca gouvernance euh, daal di joxe bataaxalu la leen nakari ci seeni kàddu ki nga xam ne moom moo di secrétaire général bi di Mortala Ndaw daal di na xamle ni nag nañuy liggéeyee métti na waaye it am nañuy ay jafe-jafe gannaaw ba ñu xam ne ni nag dafa am ay société inter téeméeri maire yoo xam ne ñu ngi ñu ngi leen di exploité ci seen biir société boobee maanaam dafa am ay société yu ndaw yu nekk ci biir société boobee euh, loolee nak nañuy nakarlu ñu teewlu moom it euh, ay kàddoom ci micro soxna Mame Birame Cissé Gueye ak Ousmane Diallo. di commencer di déplorer rek li nga xamante ni moo fi jot am léegi parce que euh, li nga xamante ni mooy la FNTS ak gouverneur ñun ñi fi taxaw ñëpp xamuñu lan gouverneur wax xamuñu lu gouverneur wax. mooy benn beneen bi mooy na gouverneur xam CNTS xam que ni cahier de doléance bi indi woon daaw lañ indiwaat ren am luñ ci dolliwaat maanaam bougé wul tey li boo leen bëggee comprendre li nga xamante ni te waxoon nañ ko dinañ ko waxaat mooy suñu ay problème mooy li ñu gis li ngeen gis tey ci pancarte yi. lim ci yéen fi ñun tey ñi ngi liggéey ci ak benn entité boo xamante ni autoroute euh, Ila Touba ak cinq sociétés intérimaires cinq bonnes années. ñuy liggéey mënuñu fayeeku suñ ay heures supplémentaires ñi ngi def huit heures d'heures supplémentaires la semaine trente deux heures le mois mënuñu ko fay ñi ngi ci trois ans de IFC non payé c'est-à-dire mënuñu fay suñ ay indemnités de fin de contrat tey transport bi ñuy indi bus baaxul cabine yi chaise yi baaxul amuñ ay EPI cest à équipement de protection individuelle amuñu ko tey boo feebaree pour nga faju sa carte IPM baaxul suñu ay retour contrat daaw ci heure bii ñu ngi ko doon wax ba nii ñu ngi toog di ko xaar mënul ñëw léegi nag dañoo commencé sonn ci wax c'est-à-dire l'heure n'est plus au au discours quoi comme ñun jaar na fi ñu war a jaar yëpp yëpp yëpp yëpp à partir de tey premier mai bii ñu teg dinañ ko tegg ba heure boo xamante ni tey dinañ bloqué dem bëgg dikk bi dañ koy wax boobule defuñu ko ñu ñëpp dégg du ñu wàcc yoon nag mhm. mais liggéeykat bu si nekk am nga sañ-sañu banque sa loxo ne doo liggéey ginnaaw bi nga defee sa ay revendications yëpp teg ay protocole d'accord yoo xamante ni say ay employeur mënuñu ko respecter li nga xamante ni moom lañ bëgg a comprendre comprendre loolu ñëpp fii ñi fi taxaw mooy bëggatuñu société intérimaire ci autoroute illa Touba. te loolu noonu. loolu noonu maanaam balaa ñu egg tabaski léegi dañuy joxe délai fii ak tabaski balaa ñu fay egg nañ ñu xajal mënuñu ko ñu dina jël suñu bés suñu responsabilité ñu tuggoo be gar ko. parce que ñu ngi commencé bi ñu dénk wàllum liggéey ak it relation avec les institutions di ba Diémé moom nag daal dina rafetlu euh, bis bi ñu jagleel euh, démb ñi nga xam ne rek euh, ñoom ñooy liggéeykat yi gannaaw ba mu janeew ak taskatu xibaar yi daal dina wax ni revendication yi ñu fi teg yéppe loole nag nekk na lu ko metti nde bu sañoon kenn du am lu ko metti ca fa muy liggéeyee moomee nag mu ngi doon addu gannaaw ba ñu defee cérémonie des cahiers de doléances maanaam cérémonie ba ñu jagleel euh, bataaxal bépp bataaxal boo xam ne rek euh, liggéeykat yi daal nañ ko bind di ab naq di naqarlu la leen métti euh, ci seen bërëbu liggéeykaay yooyee ñu teew lu teewlu Yankoba Diémé ci micro prestige. mu ànd ak prise de conscience ci dëkk boo xam ne ñii bëgg am xëy takku nañ lool loolu it bokk na ci. plaque yi ma fa doon liir mooy pancarte yi ñu fa doon porté sama fa nekk ni ma fa nekkoon yëpp dama doon waxtaan ak travailleurs yi euh, en différé maanaam ci plaque yu ñu doon wone euh, man mii maa doon jël sama portable di photographier parce que damay dem toog gën koo liir ndax message yu am solo lañ fa véhiculer euh, ci message yooyu mënuma ñëw ci détail waaye ci tënk après midi bi mooy ngoon si nga xam ne Euh, ñoo ngi fii ci palais de la république euh, daanaka luñ fa gis jot nañ ko fi wax wala junj déglu nañ centrale syndicale ñëw fii palais pour def cérémonie habituelle de remise de cahier de doléance président de la république jot na cahier de doléance centrale syndicale yi yëpp jébbal nañu ko ginnaaw loolu déglu nañu discours centrale syndicale euh, boo ko tënkee ñaari pàcc la ñoom artu nañ lool gouvernement pour mu gëstu li ñuy tuddee passif social maanaam li nga xam ne engagement bu gouvernement yàgg jël te jëfe bi xaw a euh, sooxe lool beneen pàcc bi mooy perspective ay jàngoro yoo xam ne euh, saafara jàpp nañ ne indeeguñu ko ca euh, waaye li gën a am solo ci ndaje bi mooy ke waral ndaje bi fii mooy président la république gis ngeen déglu ngeen ci discours am nu mu tontoo centrale syndicale yi Euh, quelque points yi ma ci mën a for ma mun ko tuddee directive la déjà mooy euh, jàpp na ne euh, dina def kéem kattam kéem kattanam pour ñu dajale toutes les forces bi ndax ñu waxtaan pour résolution passive sociale dans la mesure du possible beneen bu ci tegu jàpp na ne il faut ñu dugg ci yeesal ay chantier yu mel ni yeesal code du travail ak code de initiative déjà yoo xam ne c'est en ñu jëm ko capitaliser pour gën a mën a accélérer waaye ñu jël en compte li nga xam ne mooy mbébétam pour un Sénégal juste prospère et souverain dafa laaj ndaw yi am xëy dafa laaj it ñi nga am xam ne am nañ xëy ba pare ñu xool ginnaaw ñu bëri génn nañ fan yi wax ci réseaux sociaux yi nii ils ne sont pas satisfaits ñu xool nu ngi leen génnee aar sans compromettre la la la le succès de l'entreprise moo tax jàpp na ne président de la république moo ko wax dañu war a gën a dooleel tuuti suñu inspecteur du travail jox leen ay moyens juridiques pour ñu gën a mën a euh, yaatal seen liggéey surtout seen décision ñu mën ko exécuter jërë ngeen jëf mbokk yi yegg nañu ci xibaaru biir réew mi euh, fii ci Sénégal nag ki nga xam ni moom moo di Gaston Mbengue nekkoon homme d'affaires waaye it promoteur bu mag fii ci réewum senegal moom nag daal dina génn àdduna démb euh, xibaaru biir réew mi ak soxna Mame Birame Gueye xibaar yi mi ñu daal di koy tàmbalee file ci Sénégal célèbre promoteur boobu nga xamante ne mooy Gaston Mbengue moom nag daal di nay wuyu ji boroomam ginnaaw bi ko ab feebar daal di tëral la ko waral nag loolee waral waraloon sax it mu daal di génn ci làmb jilee ay eh, atta ngi niilee homme d'affaires boobee nag nga xam ne fee sa Louga la fekk baax moom Gaston Mbengue daal dinay organiser affiche yi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a am doole ci biir làmb jilee file ci Sénégal daal dinay participer tamit ci la nga xamante ne mooy grand nom yi nga xamante ne ñoom daal ay favori la ñu ci lamb ji mu ci mënee cité ki nga xamante ne mooy Balla Gaye Modou Lac de Guiers ak ñeneen ak ñeneen ñu waxandi ci leneen travailleurs yu Teranga sûreté aéroportuaire TSA daal dina ñoo décider suspendre provisoirement seen mot d'ordre de grève boobule décision nag daal dinañ koy jël ginnaaw demande d'audience ba nga xamante ne am nañ ko ci seen ministre de tutelle une semaine nag ñoom ñu daal doon doxal seen ko mouvement d'humeur la ñuy xamal ne centrale yooyee tamit ak seen i représentant daal daal nañoo gisante ak jëwriñ ji nga xamante ne daal dinañoo sax wax la leen metti ginnaaw bi ñu leen ignoré ci seen cause véritable yooyu nga xamante ne doon nañ ko xeex fan yi yépp collectif ba nag mu ngay fàttali ne autre ministre yooye daal daal dinañoo tourné doon la nga xamante ne moom mooy agent yi depuis euh, bu yàgg maanaam ñi nga xamante ne mooy agent yi liggéeyee foofu daal ñoom ministre bi nee nañ ko daal ñoom dañ leen a bàyyi woon maanaam euh, lijjanti wuñu leen ci lenn ca foofe seenu bërëb liggéeyukaay ñu jeexalee ko autorité sénégalaise yi nga xamante ne daal dinañoo defati beneen liggéey bu am solo jëmale ko ci xeex ba ñuy wax or orpaillage clandestin maanaam ñi liggéey ci mbirum or bi waaye amuñu ci benn euh, sañ-sañ ak patrouille nag bu quatrième bataillon d'infanterie situé foofu sa Tumbuxa ca Falémé zone 4 ba nag ñoom dañoo démantelé ak site clandestin d'orpaillage opération ba nag la ko soldé mooy daal dinañoo tegub loxo fukk ak juróomi euh, nit yoo xamante ne dëkkuñu file Sénégal te ñoom dañoo sóob seen loxo ci boobule activité ba nga xamante ne dafa illégal la gën a important mooy ne daal première opération bu ni mel mëne nañ ko te ñoo ko amal di autorité sénégalaise yi depuis le vingt 22 avril 2024 nag bi mooy troisième site hors péage clandestin boo xamante ne armée bi daal dina koy démanteler ngir wane moom armée bi engagement bi nga xamante ne amal na ko ngir xeex li nga xamante illégale et préjudiciable boobee nga xamante ne day suuxat suñu économie ak suñu environnement dëkk lii moo doon li gën a fës ci xibaar biir réew mi. jërëjëf soxna Mame Birame Gueye ci xibaaru biir réew yu am solo yooyee xibaaru biiti réew nañ ci daal di toftal ànd ceeg Mamadou Sator Ndiol xibaaru bitim réew ci seen télévision régionale di prestige ñu daal di ko tàmbale euh, li nga xam ne mooy jëm ci wàllu politique a wàllu kaaraange ci réew mi nga xam ne mooy Burkina Faso loolu de mu ngay wéy di jaaxal ñi nga xam ne ñoo nekk ca société civile ba euh, coalition bu ñuy wax euh, coalition de l'Afrique francophone pour la CPI moom nag daal dina artu ki nga xam ne mooy procureur bu cour pénale internationale waaye nag artu na ñi nga xam ne ñooy waa Union africaine ak waa Nations Unies ndax ci la nga xam ne moo jëm ci ay faat doomu aadama te nit na dañ ko teg fenn te ñu koy amal fi nga xam ne euh, moom mooy réewum Burkina Faso wax nañ ne nag la jëm nag ci wàllub liberté euh, ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllub politique nee nañu loolu tumuranke na li jëm ci wàllub syndicalisme itam tumuranke na ba tax na nag ñi nga xam ne ñooy waa euh, kuréel googee ñu ngay ñaan waa CPI e ñu daal di def taxaw seetlu ni ni mel ba ñi nga xam ne ñooy wéy di faat doomu aadama ya te teguñu ko fenn ñu daal di leen déglu euh, fa nga xam ne moom mooy cour pénal international ci li nga xam ne moo jëm ci def ñaawteef des ba léegi nag ci goxub Sahel googe waaye nag ca dëkku Dumaay la ñuy jëm foofe campagne électorale ba mu ngay wéy di jëm kanam président bi nga xam ne mooy rewal transition bi di Mahamat Idriss Déby no moom de guleet muy jamarlo ak li nga xam ne moom mooy élection élection présidentielle yooyu sax ñu ngi fa yéene am ci juróom benn fan ci weerub mai bii di ñëw moom de mu nga toog ca nguur ga ci weerub avril ci atum 2021 Euh, ginnaaw bi nga xam ne armée ba moo ko fa teg te ñu faatoon baayam di bi it Itno ca toolub xare ga euh, moom moom mi nga xam ne mooy Idriss Déby Itno jotoon na toog ci nguur ga lu tolloog fanweeri at euh, ca élection présidentielle yooyu lu tollook juróom-ñeenti candidat ñoom ñu nga bokk ca ñay xëccoo ki nga xam ne moo nekkoon ancien première ministre ba di Albert Payni Padaké ak ki nga xam ne mooy premier ministre bu bees bi di Succès Masra ñoom ñëpp daal nañ ca bokk Succès Masra sax bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk favori gis nañ ne nag li nga xam ne moom mooy taxawaayam ñenn ñu bëri ci ay observateur ñu ngi cay wax yeneen wax ya wax nañ ne daal euh, jamono yi Succès Masra dafa taxawee taxawee koo xam ne dafa ànd ak ki nga xam ne moom mooy euh, président Euh, Mamat Idriss Déby it ñëw ngir daal waxtaan ba ñu def su nekkee nag dem na ba ki nga xam ne moom mooy Mamat Idriss gagné na li nga xam ne moom mooy réew ma la nga xam ne nag mooy place su premier ministre na wéy ñu koy dénk ki nga xam ne moom mooy Succès Masra jeexalee xibaaru bitim réew yi fi nga xam ne moom mooy Moyen-Orient lu tolloog téeméeri ay civil ak 337 xeexkat ay combattants yi nga xam ne ñoo bokk ci Hezbollah ak benn soldat bu réewum euh, Liban ñoom de daan nañ leen faat euh, ci tolloog juróom euh, ñaari weer yi nga xam ne moom lañu génni te xeex diggante Israël ak Liban Euh, muy am ca fa nga xam ne moom mooy seen frontière yooyee ñu gis ne nag ci civil yi nga xam ne euh, jot nañ faat seen bakkan ñetti journaliste euh, bokk nañ ci ak lu tolloo ko ñaar fukk sécuriste yi nga xam ne ay ambulancier lañu 45 bërëb ca la nga xam ne moo nekk ca frontière bés bu yàlla sàkk ñu leen di faral di bombardé te aviation bu état hébreu mooy faral di def ni mel lu tolloog fukk ak eh, ñaar eh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bërëb yooyu eh, daal nañ leen yàq yaxeet ñu gis ne nag loolee doy na waar ba tax na nag centre national de recherche scientifique bu bokk ci secteur privé ak centre international d'information ñoom nag daal dinañu def taxaw seetlu ci ni ni ci gàttal daal lu tolloog 1700 ay kër daal nañ leen rasé te ña ko def mooy waa Chahal di armée israélienne lu tolloog 1500 daal nañ leen euh, fexe daal ba yàq leen yaxeet 4500 daal jot nañu am jafe-jafe jamono yooyee ñu gis ne nag xeex ba nag daal dina def ba lu tolloog 90 000 ay euh, doomu aadama yi nga xam ne ñoo dëkkoon ca dig-digalu frontière ba daal nañu yenu seen bagage daal di daw la nga xam ne mooy goxub sud Liban moom jërëjëf Mamadou Saturne Ndione ci xibaaru bii ti réew yu solo yooyee xibaaru tàggat yaram nañu ndar keppee suñu xibaaru euh, marax ki nga lii di wàllum làmb Bombardier nag kii di Franc moom moo ko daal di dóor euh, ci lu matul benn simili xibaaru tàggat yaram ak Ibrahima Sarr xibaaru tàggat yaram yi ñu daal di ko dooreek lu ñeel wàllub euh, làmb euh, kii di euh, Frank nekk ci écurie jàmbar daal di daan ci àllarba gi mbër bu mag bi di Bombardier làmb boobee nag ñu daal di ko amaloon ci àllarba gi ca arène nationale kii di Bombardier nag gannaaw ba arbitre sifflé dafa daal di bëggoon saax saaxe kii nga xamante ni moo di adversaire di Frank waaye kii di Frank mayu ko loolu benn yoon. loolu tax na euh, kii di Bombardier euh, daal di euh, saax-saaxe li nga xamante ni moo di bëreem ci kaw loolu nag kii di Bombardier daal na pare ca mbirub làmb gannaaw ba mu ñaaxee ndamam bi ak kii di Frank kii di rëg-rëg tamit daal di am ndam ca kawam ñu waxandi ca leneen gannaaw ba équipe bi di Dortmund daal di amee ndam ci kawam benn bal ci dara ak balu Niklas Füllkrug boobe tey ci àllarba gi euh, benn fan ci weeru mai euh, ca euh, demi final aller Ligue des champions équipe bii di PSG nag daanaka ñàkk na li nga xamante ni moo di matsam bu njëkk laata ñuy dem ca match retour yooyee ca biir dëkkam bés yi di ñëw ñi nga xamante ni nag ñooy parisien yi daanaka ñoo nekkoon favori ca match boobee waaye ngir ñu daal di qualifié ca final yooyee faaw ñu gagné li nga xamante ni moo di seeni ñaareelu mars ñu jeexale xibaaru tàgget yaram yi ak demi-finale coupe du roi euh, des champions euh, Al Nassr nag euh, daal di am ndam ci kaw équipe boobee ñu naan Khalid ñetti bal ci benn équipe bu Sadio maane boobee nag daal di def match bu am solo ba moom moomee di saajo maane daal di dugal li nga xamante ni moo di ñaareelu bi ak ci penalty ba ñu amoon ci li nga xamante ni moo di ñetti fukk ak juróom-ñaareelu simili yooyee ki ñetti fukk ak juróom ñaareelu simili yooyee kii di Sadio Mané nag daal di def ay match yu jéggi dayo ci saison yi ba tax na moom nag moom moomee di Sadio Mané daal dina am fukk ak juróom-ñetti but ak li nga xamante ni moo di juróomi ñeenti passe di leen fàttali ne équipe bii di Al Nasri daanaka jamono yi ñu toll nii moo daal di jël li nga xamante ni moo di ñaareelu place yooye ci Saudi League Pro boobee ñu war am nag nag équipe bi di Al Hilal ca seen demi-finale boobee nga xam ni eh, yàgg nañ koo xaar lool lii rek moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Ibrahima Sarr ci xibaaru tàggat yaram yu am solo yooyee jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen ci ay xibaar mën ngeen di wéy di seetaan suñuy xibaar ci www.prestigethies.com jàmm ak jàmm yaa na yàlla sàmm ba ëllëg ak jàmm.